session unique 2023 2024 ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom député yi nekk ci assemblée nationale téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari wuy si woon nañ ci appel bi ngir taxawal bureau bi yes sa assemblée nationale yeewi askan wi proposé na ab liste boo xam ne amul benn député bu bokk taxaw Sénégal président groupe bi di ci indi ay la ñun yeewi on a travaillé sur toutes les options et toutes les options nous conviennent li ñu yoon may dañ ciy taxaw li ñu bëgg a def nag ñëw ci biir bureau assemblée ci bi. yëkkati ay débat wax ni dañuy modifié waat la constitution bi nga xam te ni bii moo wutee ak dépôt bi 53 yi defoon ñu dañuy defar recalcul à partir du moment où des gens ont dit que dañuy démissionné kooku yoon mayewu ko loolu moo doon xew ci biir assemblée bi dinañ ko xeex na ñu mer ba futtu fukk ak ñeenti député yi nekk taxaw Sénégal daal di démissionné ci groupe parlementaire bi yeewi askan wi ñoom ñu jàpp ni mbir mi soxorte la ak manque élégance ci ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon seen i alliés. comment une coalition comme la nôtre. qui crie partout. nan la coalition bu mel ni Yewwi Askan Wi nga xam ne fu ñu toog dañ naan dañoo bëgg transparence ci assemblée bi mën a bàyyee quatre postes mu rëcc ko ndax xam ngeen ne ñun bu ñu démissionné ci groupe bi dinañu ñàkk ci lu toll ci quatre pos kon li xew du lenn lu dul mbirum coxorte ak ñàkk xel qui a fait que Yewwi va perdre toute son influence aujourd'hui dans l'assemblée gannaaw bi nga xamee ne taxaw Sénégal wuy ju na ci dialogue national bi ak génne bi nga xam ne génnee nañ ko premier adjoint maire bu Dakar bokk ci Pastef ñenn ñi jàpp ne mbir mi fayuntoo la waaye bu ñu sukkandikoo ci député taxaw Sénégal loolu dafa doon ñaari mbir yoo xam ne bokkul. il ne faut pas confondre les institutions ces deux institutions n'ont rien. bu ñu jaawale institutions yi ndaxte bokkul li xewoon ci maire bu Dakar loolu mbirum parité la. fii nag mënoon nañu waxtaan. ngir mën a am solution neewul taxawu Sénégal la ñu xañ ay poste yeewu askan wi ci boppam la ñu xañ ñeenti poste yooyu. donc ils ne nous ont pas privé nous de poste ils ont privé yeewi de poste. fu mu nekk nii nag Abdou Mbow moo jiite groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar mu daal di remplacer ki nga xam ni moo di Omar Youm nekk ministre des forces armées Birame Souleye Diop bu yeewi askan wi ak Mamadou Lamine Diallo bu wàllu Sénégal ñoom ñi lee ñooy wéy di jiite seeni groupe parlementaire bureau bu yees bi nag amul benn député bu bokk taxaw Sénégal.